diinu yàlla jàmm yàgg daal mm, amiin waaye xuloo rek am jam. lu amul dara may fas kanam ki ah. yow mel sa ni rek yow eh. ma yóbbu woon fa dem raxasaatal ma sama chaîne ba mu baax ba pare ma beneen chaîne déedéet kay waaw te moom sax soriwul biir marché central te wax la la di wër gis nga ku mu tëggalul chaîne. wala ku mu tëggalul wala la. kon yéen yéen yéen yéen yéen toog. lan moo xew. kon maa ngi toj. lu koy toj. sama xarit buuba. waaw moo ma woo téléphone léegi léegi. nee na paay yaa soo ba léegi. waa comme bi ñu ngi préparé pour ñëw ndax paay ay client lañu. xoolal paay dañoo am client de jabaru colonel ak jabaru jabaru jabaru officier yi militaire yi gendarmerie yi ñëpp. paay jël seen xaalis client leen. pour ñu conférence. maa ngi suñu jàmm suñu salaam. soo demee foo rek dégg ay waxu xale la ñu duñ ko indi. seen ah. toog leen fii ba ba eh. gars yi fekk leen fi. kii du fen de. yow loolu leen xamul. bu leen si gars yi fekkee lan la wax. ma ne juguma laa wax. waaw di nga jóg. yi xam nga ne ñii amuñu fi. mi ngi gàddu yat bi ñëw ay xeer ak lépp pour ñëw ci gi toj ko. yéen toog leen foofu man damaa woor xaaral ma ñoo dem sama yoon. waaw tey ñoo jóg kii lan la wax <laughs> yow ki daaw wér te daa yow bàyyi ñii nga xam ne kon baax na seen mag yi naan si wuñ waaw baax na eh, waaw xam naa yow bàyyi dañoo fit bopp yow yow yow kaaw ak ak dërëm dañoo fit bopp eh, waaw baax na waaw ah. ah. <laughs> kaaw ah, maa ne lii laa bëgg a jàmm moom soxla nañ ko fu nekk du Casamance rek soxla de. la de. soxla man soxla man. sama rakk la macha allah macha allah. du ñàkk yenn saa ñu réeroo waaye nag ndeysaan. waaye sama rakk la. day dégg seen bi ngeen di coow rek di wax rek. Ya, hmm. di ngeen ko dee. me mu mën a yàq bi. ñoo di leen fenal xam nga moom day fen rek. waaw nee lan gendarmerie police ak armée de terre de mer et de l'air ñoo na seen dañoo fen dundee mu ne lan daal la ñu jël ay yat di jubal si fii nee na yow ak dërëm xaw ma loo leen def kan ngeen triande trian waaw gouverneur mii ne gouverneur mii waaw <laughs> mooy loo jël ci gouverneur waaw yow kii jëlul dara waaw yow tamit mënu leen bàyyi ah, ñu nekk ci jàmm laaj rek mii ne gouverneur ñooy ah. ñoom ñooy indi waaw baax na ko gouverneur seen bekkaat yi gouverneur rek lañu wax ñoom dal wax nañ seen bopp ba génn. mii ne pare ki leen. ma eh. ku ne tudd nañ ko dal miin. eh onon ko dañ conférence pot onon yax wala. ah Ka. ah. conférence doo wuyu. dañ fee ah. engagé conférence fii. hamdi wa La Fraîche di ma wax boisson la de waaw waaw ay canettes yu mag ak yu ndaw ay boisson yu nekk ci bouteille yu mag ak yu ndaw waaye la fraîche yamul foofu ak yende la fraîche am nañu ay mayonnaise yu am solo pot bu mag pot yu diggu doomu ak ay bouteilles yu yemamaay yu saa su ne mën nga koy wétali ketchup nag ñoo ko dàqale Sénégal bu mag ak bu ndaw nekk tomate pire ñu defare ko ci anam gu sel am nañu ay macarona am nañu ay vermicelle am nañu itam petit pois la fraîche boisson la mayonnaise la ketchup la macarona la vermicelle la petit pois la ko mooy société bi len indi li ngeen soxla ci walu dundu waaw waaw bo boole ci di len wéttali ci bépp xew-xew bo len am mo xam ci njaboot gi mo xam mu doon xew-xewu diine la fraîche muy àndandoo bi ngeen tamu ndax mo gën ci yeen jokkoo leen ak ñoom moo xam grossiste la wala kuy jaay détail wala ku soxla ci biir kërëm ci 77 335 62 62 wala 77 031 00 00 la fraîche moom la ñu tàmm ndax moom la xam bay ah, kam ko addi heen gulay goyata a conférence tan han woye ah, conférence goto ah e, waaw lan la conférence de laa ko wax mu bëtt ba di jooy moom dafa ragal policier xam nga ne cas soo waxee waxu police rek day jooy tamit ki daa nekk ci weeru koor ah, conférence kat yi conférence kat yi conférence kat yi allo kaaw kaaw bu fekkee ne dangaa def dara ci biti wala nga engagé ami xaaral masala ami xaaral masala xaaral mi nan ko dóorum kudurum kudurum woni hanga se koɓere an janano jiti kalis janano mino nattanama nden dërëm moo engagé conférence. yow déggoo tukulóor bàyyi di dégg tukulóor. waaw yow may sëy ci ñoom déggoo tukulóor li ma da laa doy lan la wax. waaw nee na dërëm moo engagé conférence dem encaissé xaalisu. jamono bu nee na moom yëgu si dara. miti naani miti naani miti taal. nee na moom yëgu tinu. ok dërëm arrêté hen arrêté min nege police omonde hen nena dërëm moo engagé conférence encaissé xaalisu jaamu moom yëgul nena dërëm moo ko invité doy na yow kaw mag fen nga ah sama jëkkër ji nekk fi daal nga nekk cordonnier jël dërëm bi di ci kii nu tudd sax di ci tabax euh, saak di ci tabax euh, daal la gis nga yow ñii boo leen xamul. doo boo leen xam ba léegi. kii de kaaw lu mu def moom dërëm ñoo ko defandoo. Eh, waaw bii yoon nag sama jëkkër. da ngeen di gis ne nekkul foofu dërëm moo ko def gis nga kii lu mu dugg dërëm a ko dugg waaye bii yoon yóbbu ci li mu wax leer na kii mag maamu dërëm. dërëm di xale bu ndaw daa xam dara kii mag maamu dërëm waay waay moo tax waay kii di ko dugg dërëm ñoom ay defkat lañ de bu leen défendre de bu leen défendre ñoom ñaar ñoo yam ay defkat lañ eh, bul eh, jooy mais daa xaal dama soo wala gonga. yow bokkoo ci defoo lenn noppi. sa yoon bu ci nekk. daam daam. waaw léegi moom yëngu si dara lan la ciy jooy. lan laa bëgg a xam waaw li ñu ko taxal da koo métti. xanaa ko sa jamono passé rek jaxal gis nga kaay ma wax gis nga dërëm am na fit jabaram am na fit te lu muy def. jabaram xam na ci dara day toog fii di leere naa nanga mag moo ñu mag moo ñu gën a muus eh. kaaw bu defoon danaan ma sooda def naa ah. waaye kaaw mi deful dara eh, ci lu muy jógee ah, kii jàngul alxuraan bu mat nu muy nu muy organiser eh, conférence ah, su ma amoon su ma amoon kaalis su amoon kaalis du ma doo gis kaalis du ma la ko jox ah du ñu lekk ñu naan toro moo ko lekk jox ko tuuju marché bii ñu lekk xoolal bu ci jooy nag pompa say rongañ góor du gaaw a jooy góor du gaaw a jooy bu police taxawee ma ne la nga toog man ma dem fekk continuo yow ba ñuy wax organiser conférence sa yoon nekkul lu muy jooy ah man de loolu ma ci jaaxal nee na deful ci nu di jooy ma ne la moytul ma couple bii moytul ma couple bii baax na ba mu sotti bàyyil ma dem kër du sotti am boobu kër Aïssa Bale maa ngi foofu ba ci kanam foo jëm maa ngi dem kër eh demoo fenn toogal fii ala foofu foofu foofu bàyyil ma dem foofu tee ngaa tukki balaa ngay jël ñu lay jaawale dërëm bàyyil ma dem foofu bàyyil ma dem foofu waa baax na bàyyil ma dem foofu xam nga ne sama jëkkër ji dinañ ko ci dinañ ko rey ci loo xam ne yëgu ko ah kii dafa ragal police soo tuddee police day jooy xool ko nii jooy yi muy jooy nii bañoo kaw mi gëm nga ko kaw ak dërëm ñoo yam sama xal sama xelaat du ma nax mukk li la wax lu fu leer la ko tek waaw ah, baax na ba ba muy sotti ba ba muy sotti ñom ñaar la. Hmm, ba ba muy sotti. ku ñëw ci moom. seen cabinet médical traditionnel Serigne Medoun Sey borom tawféex di fajj kat ciossane booy jëfandikoo gantiax ngeen mën ko fekk